lan bikum Ousmane Sonko xamati na ndam la woote woon sénégalais yi fekk nañ ko ci info yéene kaay ne démb ci àllarba ji bi wenteer jotee réewum senegal fa doon riir yow seet fetal bool kubéeru bool kubéeru cin pot ba ci ay seng sax sénégalais yi bàyyi wuñ dara foo tollu dégg kacax-kacax ga tàcc-tàcc ja koŋ-koŋ moo doon takkar takarnaase ñu ne déetawaay oto yi moto jakartaa yi foo tollu dégg piip piip ja ak pomp pomp ja Ousmane Sonko ci info yéen kaay ne li tax ma woote lii nekkut ay fo déedéet comme sénégalais yi fa ñoo xam lu leen naqari ni Macky yore réew mi d'accorduñ ci jaay doole gi léegi Macky sal na fi kenn du fi amale doxu ñaxtu léegi xanaa lii ñu def moom duñ ci tëj kenn Ousmane Sonko na démbu Sénégal ak adduna bi ba ci Macky Sall yëg naqaru sénégalais yi ci ni mu yoree réew mi te nag affaire bi jeex a gudde duñ arrêté de Ousmane Sonko nee na kacax-kacax gii danañ jàppaat beneen bés defaat ko Vox Populi na ko méga concert moom nga woote démb yow Sonko Direct News na ko Sonko kay fa joxe ndigal sénégalais yi jëfee nañ ndigalam l'évidence yi ne kaay ne neexu te dégg waaye Sonko sénégalais yi ko bëgg ci seen xol yi la ne moo tax lépp lu mu santaane fañ koy def làmmeñam bi fa xam barke ba pare askan wi ñu bëri si ñoom mën ci nguurug Macky Sall gi dara ah, yow seetal loo xalaat rek askan wi génne nañ ko démb di ko kacang-kacange ngir wane seen naqar du moto du oto du charrette ay ndaw jeune waaye gis nañ tamit ay mag paa yu màgget ak ay maire yu génne di tëgg boole ca di wax na ko makki doy na abal ñu alerte yéene kaay na ko ndakaaru njaay démb fañ koo wàccee Ziguinchor fa rajaxoo Kaolack ndangaan fa nomojoo Kolda fa motojoo Louga fa xar kacax-kacax koñox koñox pomp pomp diiwaanu Mbàkke moom hee mbooloo mu bëri ca mbedd ya kacax-kacax ga jolli Vox Populi na ko université bu ndakaaru ak Gaston ñoo jël ndam li mbooloo ma génn fa bëri ba jégg dayo boole ci di tëgg ka wëy Kër Masaar nag ñoo jël raw gàddu gi mbooloo mu ko gën a bëri fa jéggi dayoo keccax keccax ga foo toll di ko dégg lii nag di firndeel ne Ousmane sonk am na ndam réussir na lam santaane woon sénégalais yi def nañ ko enquête yi nag kaay na lii kay guerre total la dakaar Dakar Mbour Ziguinchor ci gàttal réewum senegal démb diiwaan yépp fa ñoo jëfee ndigalu sonkali direct news na gaa yi kay fa ñoo tàmbali ci mortal combat mujjee ci mortal ambiance te moo yéene kaay lii nag avertissement dëgg la artu ndax Sonko am na ndam ci bérséem bi le mandat yéene kaay na Sonko kay ab bulldozer la ci kaw Macky sonal ko de lu ko Macky aaye rek mu génne beneen feem te boobu mooy gën a garaaw nag moo tax Macky Sall ak nguuram gi buñ amul jàngat ci li am démb ci réew mi askan wi di fipp boo moytuwul seen nguur gi fi lay doxee fari new de fañ koy ñàkk de la def ñoom étudiant ya bokk APR ni ki démb ca université fa ñoo a xajamal tere étudiant ya farak Sonko amal seen kacax-kacax gi waaye dootuñ ko defati de jàppante bu métti moo fa am terewul kacax-kacax am na fa source ay yéen kaay ñi ko xamal lii yéen kaay ne man kay faay laajte waa APR yi waxoon ne fa ñuy génn ay bubu zela di ko mbiib kenn gisul leen ci mbedd ndakaaru yi Sonko ñi ma àndal ñoo doon doxal de ba tax na xam nañ ndam bitim réew sax kacax-kacax nañ démb bés bi yéene kaay na yeewee ñoom ñu ngi ci ay ñaxtu tëggi bool waaye Macky moom ma nga jàpp ca fanweeri fan ak bennam ba ci weeru soulier la wara journal ne foogu leen ne wote yi fi mu toll nii fañ ko war a dàq ak ni réew mi tëddee nii yaw seetal Macky Sall nee na faa bañ kenn du ko fi toxalee waa aar Sénégal na ko loolu de d'accord nañ ci ak yow wote yi bu ko kenn toxal donte ñaawlu nañ ñi nga teg loxo ci kujje gi yow Macky ña ngi waxee ci Sud na société civile bi nee na moom fa d'accord ngir ñu toxal wote yi turbine yéene kaay sax faa foog na daal fañ koy toxal ah ñoom union sociale libérale ak ñoom seen fa dugaloon ab kalaame ca cour suprême ngir ñu neenal parrainage beeg yi ni mel ñu dàqoon dogal bi tey jii nag ci alxames ji ci la cour suprême di joxe dogal bi te fa yaakaar mu neenal yëf ñu toxal wa tey réew mi yéen a kaay ne mbootaayu réewu Europe yi tubaab yi ne nañ wax Macky Sall na ko na dàq élection yi ñu defaraat yëf ndax li fitna rek lay jur waaye Macky Sall pale ba toxal boobu ñu toxal atteeb ñoom Déthié Fall bi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru soin wii xam ngeen lu muy firéem moo ne bi daal mooy jëfee càkkatu fi woy politique ma nga lii yéene kaay l'évidence yéene kaay na ko Khalifa Sall tamit ñaawlu na toxal boobu ñu toxal atteeb ñoom Déthié Fall bi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru soin wii nee na loolu attekat yi fa ñuy jëfee lu neex Macky Sall lii rek la ñoom fa ñoo demoon ca poste bu ñu wax na robel ko ca kaso ga démb lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na Macky Sall njiiti réew mi andi na ak coppite gu bëri ci administration bi maanaam préfet yi gouverneur yi fañ cee toxal ñu bëri yóbbu leen yeneen diiwaan laa yéen a kaay ak Sud Quotidien ñoo ñu ko xamal tàggat yaram saajo maane léegi leer na intaha c'est fini signé na ca Bayern na présenté nañ ko yëkkati na fa ay kàddu ne faa ñëw fii ngir xam ndam gañe fi ay coupe yu bëri libération moom di ñu xamal ne Astou Fall mooy soxna si rayoon xale ba rend gu ñaaw ga ca si bu xotaan gannaaw bu mu waxee ne fa bëggoon a naqaral yaayu xale bi moo tax mu rendi ko yokkaat na ci nee na bi ma koy génnee kër ga sama yéene moo doon rey te rey naa ko doom moom la ñu jox dëgg loolu it fa maa naqari woon waa ma ne xam nga bi nga waxee ne yow yaa rendi xale bi su fekkoon fañ laa rendi bu yàgg konoon doo fi nekk ba léegi di wax ngir yàlla li yàlla santaane nañ ko jëfee Sénégal ku rey nit ci maag tey fañ laa war a rey su ko defee yow moomu rey dootoo rey ku ko dégg dootoo reyati